DTS en multimédia. Harmonisez les mondes électriques et mécaniques avec le BTS électromécanique, une symphonie de compétences polyvalentes. Plongez dans la connectivité du futur avec le DT réseau informatique. Obtenez votre DLC. Tous nos cours sont disponibles en soirée, sauf les cours du master. Pour ceux qui visent le sommet, choisissez notre master en management des entreprises et organisations pour façonner votre leadership. Appelez notre infoline au 33 836 66 63. Écrivez-nous à edicomservice.com. mbokk alaikum amis et téléspectateurs de la télévision Galaxy TV Sénégal Je ngi leen di comme tous les samedis l'animateur de la nouvelle génération Didier Khalid Dadi daal Dadi Diakar sarax Dadi di jàkkaarloog yéen daal di ambiance bu doy ma tax it tey nag damay daal di ñëw ci facette bu bees comme ni ma leen ko waxee woon rek actualité la divertissement la waaye ma àndi ceeg invité des jeunes comme que laa rek damay daal di ay ndaw maa ngi ñoom ñu daal di waxtaan daal di pirloo waxtaani actualité waaye ñu waxtaani aussi ci ñoom ci li ñu ne il est 13 euh, heures passé ñu ngi jéggalu ci retard xam ne am nañ ko waaye aussi ma leen wax ne rek xam ngeen rek bu ñu tàddee rek daf fekk ne dafa war a gën a neex moo tax dama jàkkaarloog euh, OS OS ma bàyyi ko mu nuyoo moom sama invité bi mu jógee ba fële ca Zagbaaw OS yaa ngi noonu téléspectateur u Galaxy ngoogu ak mu ah, OS mm-hmm. ah, euh, kontaan na moom it invitation bi waaye du ma yem ci moom rek maa ngi pelloo keneen koo xam ne damay romb rond-point Sipres de jaar ba Sédiment su ma yéegee Sédiment dem ba fële ca Kër Massar daal di ne sarax daal di koy fekk foofu moom ma koy nuyu Iso salaamaaleykum waaleykum hmm. ah, sant yàlla bu baax. déggal di siyaare képp kuy seetaan émission bi. Galaxy. waaw maa ngi nuyu ñëpp di leen fay. kontaan nañ ci yow bu baax a baax. waa kay comme ni ngeen ko déggee rek mu ngi noonu sama ñaari invité yi nuyoo nañ waaye bu ñu nuyoo ba pare comme que dañoo nekk un peu en retard. du ñu du ñu téye wax bi lu bari ndax gis naa ne samay téléspectateur ñoom ñoom li ma leen indi la ñuy gën a yàqamti que wax bu bëri bi ndeysaan mu tax wax bu bëri sax du samay yëf bu ngi noonu waaye animateur laa léegi nag euh, damay damay ñëw ci euh, li nga xam ne mooy actualité ak fën yi ñu leen indil waaye maa ngi nuyoo ki nga xam ne mu ngi nekk fële ca ba Matar Ndiaga maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu sama technicien yu ñaaw yooyu ñoom Pape Bira ak ñoom Assane Assane Laye Assane Laye maa ngi lay nuyu Assane ñëng waaye dañuy ñëw ci actualité fas yéene waxtaanee ko actualité yi nga xam ne moo gën a moo gën a fës durant ces deux jours diggante Saint-Valentin beeg yooyu xam naa bu dee pare na rek dinañ ma ko wan bokk na ci bi ci jiitu euh, ki nga xam ne mooy euh, ay dara moom muy animatrice fële ca 2STV yi euh, jour Saint-Valentin bi ñu gis mu def li nga xam ne mooy wane wane waaw gis nga mu ngi noonu wane Racky Aïdara mu wane nit ki nga xam ne da koo bëgg wane ko ko wax ci waxti bu am jom ndax nee mom moom parewul sax pour bay ko légui yow OS nan nga nan nga gisee lool le fait que mu toog ba jour Saint-Valentin en tant que célébrité mu dévoiler amouram wax ko en plein public ñëpp di ko gis ñëpp rafetlu ko si ba mu def à la une des toiles yow lol nan nga koy gisee. waaw pour man nak mhm. dëgg la quoi nit mom boko boo fa nga fësal ko. ma sha allah waaw jàpp mhm. na bu jàpp dara. Uh-huh. waaw parce que yéenam la. Mhm. te xam na ni ki la bëgg. te man la bëgg. man waaw waaw. comprendre moom la bëgg de. moo tax nag bëggee dafa dafa yaatu quoi bëggee dafa diis. trop diis soo mu def déggal ni mu def da nga koo rafetlu waaw jour mbëggee la ñu si février mu koo dégg. bu ah. dee euh, euh, février Saint-Valentin rek. Uh-huh. kon jour bëggee la quoi bëggee la waaw. mois bi mois bëggee uh-huh. kay Izo Izo yow nan nga gisee loolu loolu nga xam ne moom la moom la kii def. Euh, ay dara yow loolu na nga ko gisee. témoignage yooyu. non loolu loolu. je pense que ni loolu amul benn blème quoi. Uh-huh. yaa ngi comprendre. Uh-huh. parce que nit boo ko bëggee tamit <coughs> ah foog nga wane ko. waaw ah, loolu di dëgg la. waaw foog uh-huh. mais boo nekkee fii nii comme genre infidèle yi rek mooy loolu quoi. nit moom boo ko bëggee rek. focusal su moom quoi après nga jàll si leneen. waaw yow da ngaa focus. <laughs> ah non damay laajte ndax da ngaa focus rek. <laughs> non man kay maa focus. moo tax ah, Matar Diaga est-ce que doo doo génn kii nga ñëw defaral ma sama toldu bi boo paree rek mais mu ngi noonu comme ni ñu ko ni ñu ko gisee rek euh, beneen actualité bi aussi bokk na ci euh, ki nga xam ne mooy euh, actuellement bokk na ci golden yi nga xam ne si musique sénégalaise ñoo ko téye muy Sidi Diop dafa am benn photo boo xam ne àndoon na ko benn xale bu jigéen léegi photo boobu def polémique gars yi naan noonu Sidy dafa takk jabar takkul jabar affaire yooyu noonu mais finalement ndekete clip la woon mu génne son bu nice son bu neex mais li nga xam ne moom la def mu gën a def euh, fën ci 14 février bi si di Diop mooy que ne dafa way Wally Seck ak jabaram soxna ay ci waaw te ñëpp xam nañu actuellement Wally mu ngi ndeysaan euh, dese maman wam bi maman Diaga mu ngi ànd deuil li ñu ko koy jaale ba tey waaye Sidy Diop def lu nice def lu rafet en tant que yéen ay ay ay ay euh, artistes lan ngeen gisee loolu noonu. le fait que Sir Diop way waali parce que avant tout dañuy ñaanal su jaay jaag yàlla na ko yàlla yërëm allahumma amiin amiin waaw di wax ni waali moom gaynde la quoi <laughs> waaw bu mu bàyyi te xam naa du mës a bàyyi non non waaw waaw lu Sir Diop moom acte bu mu def moom nice na trop trop trop parce que day lii day wan ni waali sama frère la uh-huh. nit ñi ñooy wax rek nit ñi xam nga gars moom fans yi su milieu showbiz moo demee noonu. wane na ko jëfee waaw dañ koy wax di wax mais ñoom ñaar au fond le cœur laa la. xamante nañ ñoom ñaar. moo tax wane na ko jëfee na ko waaw jëfee na ko te jour fête bi. gis nga way na ko waay soxnam. kon loolu lu rafet la quoi. loolu war nañ si war a jàngat lu bëri pour xam ne ni ñaan ñi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. c'est le Sénégal. Izo yow it lan ngay wax ci loolu. ah bu nice la ko uh-huh. yaa ngi comprendre uh-huh. parce que Sénégal lañ nekk. Uh-huh. dañoo ne réew de la waaw foog ñuy sant élèves quoi foog ñuy jàppalante mm-hmm. ah te Sidi Diop lu mu def rafet na trop. Mm-hmm. rafet na trop sax mooy loolu waaw. waa kay dégg ngeen ko moom nee na rafetlu na bu baax a baax li nga xam ne moom la Sidi Diop def euh, Sidi Diop def la euh, moom it euh, muy lu rafet man tam ma koy rafetlu bu baax na Waly ak soxnaam boobu soxna Aydara mu daal di leen di wayal way bu neex nag ndeysaan way bu neex ba pare public bi nekk fanaan ko Sidi takkal jaabaat Sidi <laughs> non dafa baax ak artiste di déggoo ak sa public di am ben kii affinité bi ndax lool non affinité la n'est-ce pas je pense yéen ñi nga xam ne yéen acteurs xam ngeen ko waye ki nga xam aussi The Best The euh, Best mom nekkoon fofu chez Soubatel euh, nekkoon fa aussi producteur mom ba mu fa génnee sax yàgg na mais mu ngi rejoindre li nga xam moy mooy musique loolu muy actualité aussi benen bi muy ki nga xam moy sama idole ci animation bi waaw moom nag mu doon fête anniversaire am le 14 février Pape Cheikh Diallo waaw l' animateur fële ca télévision Futur Média Pape Cheikh Diallo doon fête anniversaire am mu am nag actualité bu ci am muy Viviane Chidid Ndour ku ne xam na digganteem ak Pape Cheikh Diallo Viviane euh, def ay témoignages yu rafet mu ngi noonu Pape Cheikh Diallo Viviane def ay témoignages yu rafet ci moom wax lu rafet ci Pape Cheikh Diallo

euh, entretien bi mu doon amal ak waa l' observateur mu ngi leen di annoncé ne que ne ne depuis mu joué rôle rôle boobu noonu Khalid Thiam ci page Instagram am comme yeneen page yi nga xam ne am na ko aussi da siy jot ay insultes en tant que acteur ndaxte gis nañ seen bu amoon euh, ci benn épisode lu mu def faa mu bàyyi ko affaire yooyu noonu yéen en tant que des acteurs yéen noonu nan ngeen ko gisee te moom rôle rek la si doon joué en fait. waaw pour man moom xam nga Sénégal moom. Mhm. Sénégal la nekk quoi. waaw boo nekkee di def lenn. Mhm. pour man bu. bu lijjanti. Mhm. fonçal mhm. ah te xam ne ni du du du moom kese nga fi nekkal. Mhm. ñëpp nga fi nekkal ak sa bopp ak sa famille. waaw pour man ay nekk si net bi di saaga man genre yoon may gën a may sax force. damay gën di def. waaw parce que Sénégal ñu ñëpp ah ñëpp war ñëpp am noonu. Mouhamad mii man moo ñu gën sallallahu alayhi wa sallam. moo ñëpp ay noonu. kon waa kon tamit lan la ñuy daw bay bay daanu. waaw pour man quoi du dara série la. te série moo demee noonu da ngay pensaa ngay bëgg kii série moo demee parce que li ko bindee la waaw mhm. ah, li ko bindee la pour man moom jarul ay di tontu wala genre genre yooyu da lay may force nga gën di dem mhm. waaw laa gisee ko Izo yow yow nan nga xalaatee loolu nan nga xalaatee la fekk ñu koy insulté ndax rôle bu mu joué simple rôle loolu loolu moom loolu moom lañ koy ñaawlu quoi. Uh-huh. mais Sénégal lañ nekk. Uh-huh. boo defee ñu wax boo deful ñu wax. waaw uh-huh. waaw moo tax da ngay def li ngeen def rek bàyyi leen ñuy dëkkee di wax quoi. <laughs> yaa ngi comprendre. waaw noonu la fa demee nag. waa kay euh, boobu Xali Caam beneen bi moom it euh, keneen kuy wut jëkkër la. <laughs> xam naa ne ñi nga xam ne bëgg nañ jabar aussi ñoom dinañ ko soxla koo ngoone moom après quatre fois euh, quatre fois mu daal di tas moom nag mu ngi gis nañ ko ci toile bi mu defaat ba mu baax. di conseil ak yi di ko wax naan ko góor ñi mooy loolu moom Bijou Ngoné en tant que animatrice moom it gis nañ mu def loolu waaye aussi bii mu ngi noonu Bijou ndeysaan toogaay bu jekk toog na di xaar un cinquième homme ay ku ñeme kii <laughs> ku ñeme Bijou laay woon ni fi mu toll beneen beneen actualité bi nga xam ne moom laay tëjee moom laay tëjee avant bu mujjee bi bi nga xam ne moom laay tëjee moom triste la muy benn waay ku ñuy wax jàlloo euh, commercant la fële ca bambay moom dafa daal di suicidé wu ci tombu papaam ak yaayam fi nga xam ne fa la nekk fa la dem ba ci armée yi daal di taal boppam muy loo xam ne métti na lool lool lool sax ñuy ñaan borom bi subhaanahu wa taala jéggal ko yërëm ko waaw moom fële fële la xewee ca Bambey ca armée yi Bambey la xewee macha benen bi nak moy gis nañ actualité bu bu mag mag la fi ci Sénégal nak gis nañ euh, la libération de plusieurs de plus de 500 détenus euh yo xamné japon nañ leen feulé ci prison Rebeuss ak yenen ñu leen daal di libéré muy lo xamné aussi rafetlu nañ ko bu baaxa baax en tant que des jeunes day baax ñu wax ci day baax ñu kii si un ngi seen commentaire yi yëpp aussi ma ngi content ci yéen wa kay yéen ñi ñuy suivre feulé ci YouTube ak ñi nga xamné ñu suivre aussi fi euh, ci Facebook waaye aussi ñi nga xamné ñu ngi assise confortablement ci seen salon di seetaan Galaxy euh, TV jaga Euh, dañuy daal di ñëw ci deuxième partie bi da nga may daal di may tuuti euh, sama sama lii bi rek sama générique bi rek ma daal di ñëwaat euh, tuuti ci plateau bi ñu defar kii bi oreillette bi. wàcc incha allah. mën ngaa affiché waale numéro bi aussi mën ngaa affiché waale numéro bi waa kay mu ngi noonu ñu ñëw ci deuxième partie émission bi ma ci ànd ak samay invité waaye laata loolu damay souhaiter un joyeux anniversaire à notre fils Sidi Ngom Sidi Ngom. le fils du président Moïse Ngom borom ak salaam Sidi Makoy koy souhaiter un joyeux anniversaire de la part de Ken Ngom moom sa tante jooju Nena na mu lay souhaiter un joyeux anniversaire Sidi Makoy ngi koy nuyu bu baax may ma photo Sidi bi foofu bu dee baax na ma ma wax ko moom nga xam ne papaam jàmbaar la papaam ku baax la ndeysaan daanaan la ma koy ñaanal mu waaw kay mu ngi noonu 78 le 106 60 63 mu ngi noonu 78 le 106 60 63 pour bëgg. Euh, bokk ci émission bi wa kay ma koy nuyu bu baax a baax moom Ndiaga Matar waaw légui euh, sama invité yi nga xam ñom la dalal ki mu ngi tuddu iso mu ngi ko ba feulé ci Kër Massar ndeysaan Kër Massar moom waa Maam Ndawa gis na len ñom ñom ñoom ngi bëgg di aimer émission bi di ko partager aussi di content euh, ci invitation bi iso iso bi iso bi tour iso bi lan moo waral lool. Izo wala sa la ba non <laughs> <laughs> non iso bi nag sama benn boy la jóge quoi ah. nag sama benn boy la jóge quoi ah, yee man dama man kii nii nu mu tuddati rab bi nii showbiz bi nii focus wu si woon noonu quoi mm-hmm. man si TikTok bi laa doon nekk genre man man nitu kii laa quoi bugguma kenn di mer quoi ah, yaa ngi comprendre damay nekk di kaf nii ak foo ak ree quoi mm-hmm. TikTok bi laa nekkoon di jouer après ma jéeg saa dem ba si biir mm-hmm. kii bi amuru rabbi Duguma, dugg ma Duguma. ma après cela a commencé mhm. ne pourquoi pas après cela demé wax ak Halil Halil kana, Halil kana, moom ma maa koy nuyu bu baakha mhm. Wow, baax waaw après cela cela si commencé focus si rabbi mhm. dugu ci di sama premier single bi man ak moom ñoo ko def waaw mom mo ci si quoi machallah allah waaw muy papay game bi waaw <laughs> papay game bi daan ko tuddé papay game la tuddé <laughs> premier son bi mom moom moo ma si bu baakha baax waaw gis naa leen waaw sant quoi. Uh-huh. maa ngi sant yàlla bu baax a baax. waaw waaw waaye kay Izo dégg nañ ah, li nga li nga xam ne moom nga wax mais iso ba nga duggee ci rab bi comme ni nga waxee ne nga sa euh, duggoo ñëw du woon loo xam ne moom nga gënoon bëgg TikTok parce que gis naa la ngay def ay vidéo TikTok et tout du genre teg ay son di ci fecc mais bon ba nga duggee ci rab bi. Euh, lan moo la am na loo xam ne moo la gën a forger principalement parce que am na loo gis ci rab bi mu neex la lu tax ba nga dugg ci rab bi je rab bi non par amour la ñëwee duggee noonu rek quoi. par amour la ñëwee duggee noonu ah, te damay gis gars yi di def lu nice. di gis gars di def lu nice. waaw maa ngi gis. son yu son yu nice son yu clip yu dope quoi. Uh-huh. yaa ngi comprendre. waaw. ah loolu la dugal ci rab bi kon. waaw loolu dugal macha allah léegi ba ba nga ci duggee amoo si ay inconvénients et yoo xam ne xaw na laa ragaloo ba nga bëgg bëgg a delluwaat fi nga xam ne foo nga jógee woon mu ngi ci TikTok. non non ah. non non. wala da ñu ci dugg rek nekk ci àll l'aise. dama see dugg nice. Ah. <laughs> waaw mais parce que dafa am ñu la ko yombal je pense am na ñoo xam ne ñoo la jàppale ñoo la boosté. gën laa forger si rab bi ba nga toll fi nga toll nii. waaw waaw am na ñu may jàppale moom. Hmm. waaw am na ñu may jàppale bu baax a baax te maa leen siy sant nag. di leen si gërëm. Ah, ok dinaa ñëwaat ci yow ci kanam tuuti ma dem ci l'enfant chéri de la Z de Mbao Ousseynou Sow OS ma koy nuyu bu baax a baax a baax moom muy daanaan dëgg nag daanaan pire macha allah borom euh, kii borom talent nu mu tuddati sax Euh, Oscar des talents borom Oscar des talents ndeysaan mu dem final machallah mom ñukay encourager mom encouragé la c'est un jeune pétri de talent macha allah dëkk fële ca Zagbaaw OS euh, est ce que mën naa xam lan mo le bousser dugal le ci li nga xamné ci nga waaw mom ma en 2019. machallah waaw en 2019 parce que dama mosoon toog samay samay xarit. moom dama tàmm wayantu. macha allah te xam naa dama am talent. loolu la nag quoi ma nekk di wayantu benn jour sama copine da doon anniversaire. gars yi forcé ma. ne ma bàyyi sa boîte neex na dama nga wayal sa sa sa copine aussi. ma ne waa ok d' si laa fa dem benn jour nag. waaye ko way bu neex ñëpp apprécier. macha ma léegi pourquoi pas nga dugg studio nga way. parce que xam nañu bëgg nga ko mhm. pourquoi pas nga dem mën nga ko aussi am nga ci benn talent pourquoi pas nga dem nga dem dem way ji mhm. ju boobu laay toog studio si mhm. laay génnee sama son bu tuddoon lépp si yow maa ko woyee sama copine ah dama ko nëbb quoi mais mais mais ah. mais lépp ci yow boobu dama ci may tuuti rek léegi acapella bu ma ci tuuti rek ci lépp ci yow boobu nga ko wayaloon sa copine baby xel bi tukki na ci yow sori na xalaat yi bari baby kaay xool ma si baax bëtu mageel xam nga ni du benn saa ma yoo di la xalaat bébé ah macha allah macha allah OS dégg ngeen li nga wax li nga li nga xam ne moom la acapella oh ndeysaan kon lii sa sa copine nga ko wayloon. waaw ah, sama copine laa ko wayloon non am na ñu am na ñu bëri ñu ko bëgg a am Samba doon Diallo maa ngi gis mu ngi naan man lii de bëgg naa ci am di wayal sama copine. mais nay xoolee baat malheureusement. man moom xaw naa neex baat tuuti sax. <laughs> xam naa neex baat mais ci ci ci wax la mën mais mais bëgg a duggee ci musique bi euh, aussi. Euh, dafa doonoon loo xam ne comme ni nga ko waxee da nga ci amoon tana ñi ñu bëri boosté la si mais bu ci duggee est-ce que amoon nga ci accompagnement bu gën a tax ba nga ko gën ba nga gën koo ñeme. waaw ba mu si duggee amoon naa si accompagnement waaw parce que ñoom ñoo ma si poussé mu dugg si ñoom ma doon jàppale. Hmm. donte metti woon na trop nag quoi metti woon na da nga dégg ay wax. Hmm. da nga dégg naan ah boobu xamul dara. Hmm. boobu lu ko dugal si musique lenn la buzz buzz wala genre fekk alors c'est pas ça. nit ki boo amee talent da nga koy wane. loolu la loolu mu dugaloon si musique bi ñoom poussé ba mu dugg si ba mu mujjee doon li nga sama passion la damay jàng encore di way Masya allah mais loolu aussi am solo mais bu ci duggee aussi amul inconvénient yoo xam ne ñëw na ba tax nga ragal ba bëgg a delluwaat ginnaaw bëgg a non non non non aw ma non non. ah déedéet. doon si dégg li ci xale di dégg. metti na waaw di nga dégg lu nekk. di nga dégg lu nekk. mais du tax ngeen ragal. du nekk gën a parce que tey ñooñu wax jooju. Mhm. moo tax ma gën a taxaw takk daal yi. ne par la force damay foncer quoi damay dem. loolu am solo la. waa kay Izo euh, dé dégg nga li li nga xam ne moom la wax euh, moom copinam moo ko dugal ci kii bi te dañoo jógee ci Saint-Valentin du ma taay di wax ci loolu moom copinam moo ko dugal ci waay bi mun naa wax loolu ndax copinam la waay waay bi neex gars yi kii ko bu see ko mu dugg ci yow loolu nan nga ko gisee la fekk mu mu acte boobu noonu mu rafet boobu noonu mu def. waaw moom atu nice la quoi. waaw parce que boo bëggee sa copine moom. waaw boo ko nee defal son defal ko quoi. Mm-hmm. loolu la fi boo ko mënee boo defal son rek defal ko son. Assane de noonu la ñu mooy kii technicien bi ngeen fekk noonu ci buntu bi. wayal na soxnaam way bu neex boo xam ne. non Assane Assane li nga way noonu man moo jaaxal ku ma xam ne Assane mën na way du ma ko gëm te soo jógee di nëbb sa bopp gars yi Assane. <laughs> waaw maa ngi kii nii nag maa si ko siy remercier bu baax a baax a baax. ci acte bi si acte mu def. waaw lu nice lu rafet la quoi. waaw mhm. ma ngay wax mu focus. mu focus gëm boppam dem. waaw bu mu dégg kenn. Mhm. mën nga génne son parfois si commentaire yi nga gis ay. Uh-huh. ay commentaires yu négatif quoi mais mais bu leen tontu bu mu la def ay kii nii quoi bu mu la def stress waaw bu bu leen sax lijjanti quoi bu sax def sa bopp ndeysaan léegi demal rek yow waaw démb la woon ndeysaan suñu anniversaire notre président le président Assane Sarr mu koy wax happy birthday moom it démb la woon anniversaire am aussi waaye maa ngi nuyu Sadio borom seen métal tek Sadio moom it borom Galaxy TV moom lépp lu jëm ci fer moom moo ci aay Sadio borom seen métal borom ay see ndar gu ndaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaye aussi damay dem ba fële ci ay see GAD nuyu ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax baax a baax mais euh, Izo dafa am loo xam ne ma bëgg nga may ma ko quoi benn acapella rek benn benn benn non freestyle fàtte naa ne yow kii nga rappeur nga benn freestyle nga may ma ko rek may ko aussi ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan en direct ci Galaxy TV Sénégal Facebook comme YouTube aussi. waaw ah, ok waaw. wow hey. maa ngeeg lépp denc comme google dugal booy tuutalee eh, tuutal puusal rab bi ndongu laay suusal xuusal liggéey nekk seen pap fii dañu dégg jàmm donte sa ñu jàmm gën damay karaate ni Jackie Jean mënoo ma génn si gars yi mën ay eh, man maay dugaat di def ngay bañ yéeg naa ci kaw di am ay daaj tagay ay rappeur te duñu insta pour calculer mani jarul delta booy nee nañ ma kàddu bal la ay pan pan pan pan kurpañu bopp kan la kuy laaj kuy iso kooku kan la may king benn xale booy duma tendance fils ma réew ba dof ku wax ñi lekk tantam sa rapa di fixlu ma wekki tantam damay dëgg sa astafirulaay <laughs> kayaaf ma foo koy taf naa ci kaw bi ci ramatulaay di rab te xamu leen gàtt eh. yes ndeysaan cu bu fekkoon bu fekkoon ñu nekk ci podium ñu ngi tëgg tëgg tëgg public bi di ndeysaan ça va rafet des moments yoo xam ne mais macha allah macha allah waa Kër Massa ñu ngi aimé ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi commentaire wax ne ñu ngi rafetlu seen doom ji li ñuy def ah seen doom la nag macha allah mais iso iso li nga fi def nii nice na trop nice na trop trop trop est ce que mën nga maa décortiquer un li nga xam ne wax nga ko foofu ak li nga xam ne bëggoon nga ko lancer foofu mooy damaa ne maa ngi lépp denc comme Google Google mooy ça veut dire que rab bi boog am naa lu ma si yor quoi am naa lu ma si yor te dinaa ko génne incha allah yaa ngi comprendre maa ngi lépp denc comme Google Google booy tuutal lay tuutal. Ah. booy tuuti lañuy tuutal ñu nekk si ah, game bi. booy tuuti waaw yow daal la ñuy tuutal. non non pas man quoi. <laughs> dañuy ah de ñeme ko nag. comme dafa bëri ay def boo paree moom ba déglu fii dinañ ñu kii galaxy la toogoon. di ñu di ñu di ñu classe. loolu dinaa si ñëw léegi. non non waaw. Euh, booy tuuti lay tuutal. Mhm. puusal rab bi dong lay suusal. waaw liggéey nekk seen papa. Mhm. fii dañuy dégg jàmb. Mhm. donte sax dëkkuñu jàmb gën. yaa ngi comprendre ah, ay punchline si si yëfu naan di dëgg la allah yëfu la. donte sax dëkkuñu jàmb gën quoi macha allah xam nga ñëw ci OS OS dama bëgg nga mayaan ma benn boo xam ne da nga koy may xam nga sa copine nga wayaloon wayal ma wayal ma kii ma leen di fàttali 78 la 106 60 pour boo bëggee dugg ci émission bi waa kay pas man sama <laughs> numéro ngeen di woote gars yi xam nga dañu may woo man pour foo ne dinañ dugg ci émission bi alors que tel n'est pas le cas 78 la 106 60 63 OS mën nga maa may dara may ko aussi téléspectateur sa fans yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan. waaw. am na yu neex yow ngi leen di siyaare yéen samay fans yi a tax tey maam force bi may di wey man ne bëgg naa leen sopp naa leen oh sama fans yi bëgg leen ça me rappelle Abdou Guité Seck ba bu cubaloo ndeysaan son bu son bu lu neex la def foofu wuu Ndiaga mu may wax si résumé ne moom munu mu ngi téye mu ngi tëppi tëppi rek Ndiaga mu si résumé ndeysaan <laughs> waa kay mu ngi noonu eh, OS li nga def nii dafa am solo trop trop waaye say soppee noonu da nga ko imaginer wala dafa doonoon loo xam ne da nga ko génne non non niveau bi yëgg foofu ah haut niveau la haut haut <laughs> level bi comme ni ka gars yi di waxee mais dama bëgg ñëw loolu xam naa damay jiite ci ISO ba pare muy rab bi dañ cee nemee ko benn affaire muy classe du loo xam ne day dundal day dundal hip hop bi ISO classe yante bi loolu loolu lan nga ma ci mën a wax classe yante bi ndax day dundal hip hop bi wala dafa di doo xam ne mooy loolu rek dañ koy def juste pour pour am buzz parce que je pense que la plupart da ngay xool tey benn ISO nga ne soo ma ko classé leer na ma ne dinaa si am buzz nga classe ko wala da ngay classe benn ISO pour gën a dundal rab bi. non loolu moom hmm. si rab bi la bokk te da lay gën a yéegal quoi nekkul ay affaire de question ay nu mu tuddee sax ay buzz moo tax ñu koy def waaw classe bi moom day fekk sa benn pig la wala dara def la lu la metti genre yooyu noonu. après nga génn. Mhm. wax ko bu ñemee yéen ñaar tamit ngeen taxaw. Mhm. noonu la fa demee clash moom amul benn blème. Ah. waaw c'est ça mais mais mais mais aussi parfois da ngay gis ñoo xam ne dañuy clash koo xam ne moo leen ëpp niveau. moo tax ma wax loolu moo tax ma kii tey jii nga xool benn benn ISO rek nga kalaal xam nga yow tey sa niveau. <laughs> niveau lay saay nii sa niveau weesu na niveau gars yi. quoi qu'on puisse dire mooy loolu niveau bi niveau niveau xale la <laughs> mooy loolu la <laughs> te lépp xale koy def fi réew mi tool léegi yow tey nga xool benn ISO classe ko. Euh, loolu est-ce que du bës nga ci bëgg walla da ko def nii juste pour pour pour pour comme ni nga ko waxee naan ay xawma da nga koy def pour yéegal niveau rab bi. non loolu loolu peut ñoom ñoo ko bëgg quoi. Ah. jeg saa gis nit nii. mu ëpp la kii nii da nga sa bopp ci rappeurs yi nii kon. ah da nga génne sa bopp ñi ñi koy def boobu ñi koy def. yow si ñi koy waxal non ñi koy <laughs> ñi koy def laay wax quoi. Uh-huh. ñi koy def di clash ñoo xamante ni mooy loolu. Uh-huh. boo leen clashé tamit duñ la tontu. Uh-huh. ah ñooñu daf leen a neex pour ñu génne son bi. waaw xaw ma lan lañ si wut nag. waaw waaw mais daf leen neex quoi. waaw. léegi 78 la 106 ñu ngi may laaj numéro 78 la 106 60 63 78 106 60 63 mu ngi noonu mais mais Izo dégg nga li ma OS dégg nga li Izo wax laaj naa ko ñoom rappeurs yi comme que yow xam naa classe bi yéen seen côté dinaa si ñëw mais ñoom classe santé yi dañ koy def euh, day dundal rab bi wala da koy def pour yéegal sa niveau mu ne ma clairement non rab bi la si rab bi la boo ko li li wax la rek. Mhm. parce que classe santé ci mhm. la bok parce que tay di nga gis ku euh, la ëpp niveau. Mhm. yow yaa ngi si game bi yaa ngi xuus yaa ngi dem. pourquoi pas ma pikkale. bu ma tontee ma mëna yegg am nañ bari lool lañ koy lool ñuy def ah, jappé classe. voilà loolu laa loolu laa bëri lool ñuy jappé classe. mais amna peut être mëna nekk tan ñaa ki doon pik nga fay. wàllu day am. lool tam ci classe santé la bok do ci la bok mom lu mom nice quoi mëna naa apprécier ci côté bok quoi. classe yu fu mbéd la. fu mbéd la waaw. OS Ngoye nga nekkoon fële ca euh, Oscar des talents mhm. Oscar des talents nga am fa ay résultats yu mucc ayib yoo fa def mhm. macha allah Oscar des talents nga xam ne lu mag la suñu papa ji xar Xarma initié ko xam mhm. Xarma ñu koy nuyu de passage moom aussi di nuyu toute la xar Xarma fii ci Zac ak ñu nekk fële ca Jëppal Derklé maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax waaw nga bokkoon ci Euh, sa succès euh, sa accès des foofu ci Oscar des talents est-ce nañ xam ne mu demee tous les débuts na nga def ba dugg fa bokk ci et tout. def ba être sélectionné ba tey yàlla may la résultat yi mu la ci may. waaw Oscar des talents ba ma fay ba parce que télé rek laa ko gisee woon quoi. Mhm. dama ko yàgg suivre. Mhm. chaque chaque année. Mhm. léegi nag ma toog di ko seetaan mu ne pourquoi pas man am naa talent pourquoi pas ma dem fësal sama talent. tey Oscar des talents bu ma demee ba ma fa tànk tey mu ngi dëkk ba HLM waaw Babacar Thiam HLM Dakar mi ngi dëkk ba HLM Dakar mhm. tey moom moo ma tax moo tax ma gën a dem inscrit bokk si Oscar des Tambours dem casting yàlla def ni ñu jël bi mhm. waaw ñuy xuus nag ba dem yàlla dem ni ma dem ba dem final instant ñu ngi xaaraat grande dem bi incha allah septembre la di wax waa Zanbaaw ñëpp waaw ah, sama gars yi bëgg naa ñoom ñëpp tamit ah. <laughs> booleel ma waaw doon mhm. ne affaire bi parce que kenn ma war a représenter Sénégal loolu te ah. ñuy ñaan yàlla

Wow, job bi metti woon na metti woon na trop trop trop nombreux na metti woon na trop parce que jour répétition bi rek feebar naa fi quoi feebar naa mais muñ naa ba dem parce que bu ma ba taxaw si kaw public bi ba ma man sama ñi andal, àndal dama gën am force waaw parce que bëgguma di dem ànd ak nit may ma ma jël appel bi tuuti 78 le 106 60 63 Galaxy TV Sénégal sur votre émission Galaxy Show salaamaaleykum. maaleykum salaam allo. allo waaw. dégg nga ko de sant yàlla bu baax tur bi ak sant bi ak fooy wootee. numéro. ah. man la Arona Zag Mbaaw. Arona depuis Zag Mbaaw Arona maa ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw. di kontaan ci woote bi aussi. maa Arona. waaw mu ngi noonu. ñu <laughs> gis nañ affaire yi rafet na trop rafet na trop macha allah Ya allah yal na ya yokk rek amin di encourager aussi boy bi toog foofu noonu mooy Cheikhou Assane Ya, ya merci ah OS Ousseynou ok maa maa Ma Ma gis affaire yi nice na trop merci ba yàlla temps bi moo ngi fi merci beaucoup Arona merci Arona merci ok focus rek gëm sa bopp da nga ciy génn inshallah inshallah jërëjëf inshallah aussi rappeur bi boobu noonu tamit yàq na xam. Izo. Izo waaw. waaw kay. amoon la bool ball. léegi mooy loolu rek koo gis rek. incha allah amul benn problème. adona maa ngi koy nuyu bu baax a baax depuis Zang Mbaaw Arona Arona Diallo maa koy nuyu moom bu baax a baax a ngi gis seen message yi di kontaan ci yéen Arona l' chéri de Bambey borom ice Bambey mom la ball. bool. Arona maa ngi koy nuyu bu baax a baax kontaan naa ci participation émission bi waaye aussi maa ngi nuyu Rams moom depuis Kër Massar moom mu ngi foofu cité pénitence bu Kër Massar moom maa ngi gis message moom maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaye di waale aussi ki nga xam ne mooy Kaaw Mamadou Sy yaayam dafa génn àdduna bu yàggul moom ñu nekkoon ay camarades de classe moom maa ngi koy nuyu bu baax baax OS ma ñëw nga ñëwaat fi nga nekkoon. waaw parce que Oscar de temps moo fay dem. Mhm. juste amoon na métti woon na. allo. salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. oh dafa mel ni dem naa. waaw métti woon na métti woon na trop nag quoi métti woon na trop. dama naa ba amoon feebar naa si mais dama fonce taxaw dama gis samay ñi ma àndal. Mhm. ma gën a dëgër. Mhm. ma gën a dëgër waaye. Mhm. loolu moo taxoon tey ma dem wane fa lu lu lu lu lu extraordinaire. pour pour parce que ànd ak naa ay nit pour capable may ñibbi ma ñibbaak ak victoire. ak victoire waaw neexal na te te mobilisation bu am solo bi gars yi def nañu lu nice. macha allah di nuyu ñoo jàppoon si mobilisation yi ki nga xam mooy. Euh, Laye Cissé moom mooy président académie bi. Laye Cissé Laye Cissé. Laye Cissé président AIC bi wala. Euh, AIC. Zangbaaw académie bi Zangbaaw bi daal. waaw waaw waaw. waaw ah, di ko di ko di ko nuyu bu baax. macha allah ah, parce que moom tam jàppoon na si. jàppoon na si affaire baax baax macha allah. ñi bari jàppoon nañ si am. parce que mënuñu lim yëpp mooy loolu. Mm-hmm. macha allah waaw kay euh, ma ñëw ci sama rapport bi l'enfant chéri de Kër Massar l'enfant chéri de Mame Ndawa Mame Mame Ndawa ñëpp a ngi toog ndeysaan principal bi sax <laughs> directeur beeg surveillant yi ñëpp a toog toog di seetaan Galaxy Show. dinaan suñu suñu rappeur bi ndeysaan mi ngi noonu waa Kër Massar yëpp bëgg nañu ay sëtu Balde maa ngi koy nuyu bu baax a baax ay borom ay si renaissance maire aji maa la lay nuyu yàgg waaw cité Mame Siré ñoom ñëpp nee nañ seen mbootaay bi mbootaay tous les femmes de la cité Mame Siré ñoom ñu ñu ngi toog di seetaan émission bi di seetaan Galaxy Show di seetaan le plus jeune animateur du Sénégal waaye di seetaan aussi sama invité yi nga xam ne macha allah lu ma wax si ñoom rek damay juum mu ngi noonu waaw Izo l'enfant de Mame mu ngi noonu yow itam est-ce que mën naa xam perspective yi nga xam ne jot nga ko def mooy ah, perspective yi nga xam ne yaa ngi ciy lancé wu ak yi nga xam ne jot nga ko def ay morso wala single wala featuring yoo xam ne aussi jot nga koo génne est-ce que mën naa koo xam aussi nga waxaale ko te spectateurs yi. waaw man moom carrière solo laa def quoi. waaw man kese maay dem. mais am naa ay featuring yu may waaj. macha waaw am naa ay featuring yu may waaj xam naa fi ak si kanam rek. waaw ñoo ngi si projet yi nag. dañuy def nànk nànk rek incha allah. di ko toog bu ñoree rek. dina génn incha allah. incha allah incha allah. mais mais mais featuring am na am na ñaata ñaata au nombre de ñaata kii nga génneegum actuellement ñaata si eh, single nga génneegum. ñaata non trois laa génneegum. trois nga génneegum am na ay yoo xam ne ay ki am na ay clip. benn moo si am clip. waaw benn eh, sa clip bi nu mu tudd. nu mu tudd ma wax. Euh, LSB bi.

pour def ko clip quoi. Ah, waaw maa ngi waaj pour def ko clip. mais am na yeneen ñaar yoo xamante ni tamit. Mhm. maa ngi préparé. Mhm. te clip lay doon incha allah gars yi nañ ko gis léegi. Mhm. yàggatul. Ah, waaw ok kon kon yow ba dina am kii ambiance bëggee lay doon wala <coughs> euh, kii lay doon nu mu tëddee euh, comment dirais-je seen bi. loolu nu mu tëddee lancer pic lay doon. Ah, lance pic lay doon bëggee lay doon wala euh, yeete lay doon. non benn benn bi amur la. Mhm. beneen bi beneen bi moom si kii bi la quoi. Mhm. si rab bi la. Mhm. waaw. ok maa ngi nuyu tout euh, waa tous les élèves euh, du SEMZAC tous les anciens élèves du SEMZAC waa troisième tranche ñu ngi naan ma ñu ngi toog fële ca Kër Massar. 78 la 106 60 63 salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi nuyu sëñ bi noo tudd ak euh, noo sant ak fooy woote man la sa mbokk taalibe Cheikh Birane. <laughs> Birane gay maa ngi lay nuyu bu baax a baax taalibe Cheikh bi. maa ngi lay maa ngi lay delloo nuyu bi di nuyu ñi toog foofu ñëpp. macha allah Birane sama waa yi nuyu naa la bu baax. ah nii la rek ñun moom ñu ngi sa ginnaaw man waa Jot Baaw yëpp ñu ginnaaw. <laughs> macha allah. <laughs> da a baax rek. góor yàlla dëgg mooy yow. billaahi kenn billaahi da baax rek. di wax di wax di wax sama sama waa ji toog foofu Iso. Iso ah. waaw Iso sa waay la de. di ko di ko nuyu bu baax ne ko ne ko noonu la rek jàpp rek moom moo beneen waa ji seexu yàlla bi. <laughs> affaire affaire yi moom jàppale rek. Mm-hmm. waaw te ñun te ñun ñu ngi seen ginnaaw incha allah. waaw. naa ne Kër Masar ak Zamba benn la. benn la de moo moo macha allah benn la moom. benn la de waaw kon nañ taxaw dëgg rek. incha waxul kenn dara. Birane maa ngi lay nuyu bu baax a baax de. maa ngi lay waaye yow borom baax nga xam yow yaa baax moo tax ma jël sama téléphone di woote. kontaan nañ ci yow bu baax a baax. maa ngi gën a kontaan foofu. macha allah. waaw waaw yàlla na yàlla dolli jàmm rek. allahumma amin dollil ko defal ñu ko ñun ñëpp. jaajëf waaw maa ngi leen di bàyyi ngeen continuer. ok. ok waaw. jërëjëf Birane taalibe Serigne Babacar Sy Malick bi Bakary Karamar Aram Lo Kumba Thiam Seydi Fa Gueye Demba Massa Diawar rek la yaakaar moom taalibe Cheikh boobu Birane Gaye maa ngi koy nuyu di ko kontaan ci moom bu baax a baax ci woote bi nga xam ne mu ngi koy woote ndeysaan ñoom ñëpp ñu may envoyé message billaahi bëgg naa bëgg naa leen nuyu ñëpp mi mënut a nekk di ngeen may comprendre rek su ma limee ñëpp yaakaar naa ne émission bi dañu waxtaan ah, xam naa ne su xale jugee rek zang a jug loolu moom xam naa ko kontaan naa ci yéen waaye damay dem fekki fële ca ICZAD sama kii bi fa nekk sama cousine bi fa nekk moom Fatou Ndiaye Ndiaye Diatta Ndiaye surtout Albouri Ndiaye ji moom depuis ICZAD fii ci Daaru Salaam Rufisque maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom it nee na moom toute la famille ñu ngi toog toute la famille Ndiaye toog di ñu seetaan waaye aussi les anciens du SEM Zag Mbaaw troisième tranche nee ñu ngi toog fële ca Kër Massar cité pénitence chez Kaaw waa ca Camille Bass ci kër Kaaw toog ndeysaan ñoom it di seetaan émission bi ñoom Rams ñoom Aminata Gueye ñoom ñëpp maa ngi leen ñi fa toog ñëpp kontaan naa ci yéen tey jay dafa jaata maa ngi koy nuyu baax baax a baax kon gars yi waaw Izo euh, ci yow nekkoon de n'est-ce pas waaw kii bii nu mu tuddati album est-ce que am na album boo xam ne yaa ngi koy waajal album xam ne album bu mag lay doon bu waaw non nekkaguñ si nag ah. nekkaguñ si waaw lu tax nga ragal lool non ragalu moo ko sax mhm. ragalu moo ko mhm. affaire affaire de patience la quoi. de patience aussi si patience la. foo ñuy def nànk nànk rek. Mm-hmm. ba yéeg quoi. Ah. waaw dara xëyu rek sotti. waaw. mais est-ce que aussi am na ay événement yu mag yoo xam ne aussi participer nga si nekkoon nga ci mooy loolu. non man moom yaakaar naa ñaari fosco laa demagum. Hmm, ñaari fosco. waaw mooy suñu école maam Ndawa bi. dégg naa yëngal nga ko <laughs> maam Ndawa moom dégg naa yëngal nga ko le président du gouvernement scolaire ak tous les ensembles du gouvernement scolaire de maam Ndawa maa ngi leen di nuyu bu baax a baax président bi moo ma ko wax nee na ma yëngal na ISO yëngal na yëngal na foofu fosco bi. waaw mhm. est moom tur bu demee ba àgg fii mu toll nii rek. Mhm. ñoom la ko waaw maam Ndawa ñoom la aussi waaw ak waa Kër Massar. waaw ñoom la. waaw. ma ñew ci OS OS yow mom yaakar na ni aussi amna ay tube yo xam ne nga ko ñaata ils sont au nombre de combien ak aussi perspective yi nga xam yaang ci lancer moy yi nga xam mom ngay waaj a waaw lancer won nañ 3 3 single waaw lepp ci yow la woon mhm. chupinet non quatre la ak ruel love bi mom mu jey gën le 13 bi nii macha allah mhm. waaw ñu ngi waaj tamit leneen quoi ñu ngi mhm. waaj leneen di waaj projet aussi waaw parce que fani inshallah rek may wara de ben vidéo fi nga am ci rond point Zangba bi ak saa bi benn mhm. vidéo bu ñu war a lancé. Mhm. waaw mu mooy wan ko maa ngi leneen. Mhm. incha allah. waaw kay Aïssatou Baldé mu ngi naan ma mu ngi bëgg a woote mais réseau bi mu am problème ndeysaan liñ bee liñ bee liñ bee xat <laughs> maa leen di nuyu yéen liñ bee xat mais aussi am na am na est-ce am na yoo xam ne moom nga moom ngay waajal yu rëy.

tëgg concert. waaw kay est-ce que yéen tam a ngi waajal loolu. def lu rëy 18 18 ans millionnaire ah. 18 ans millionnaire waaw loolu la wax de du samay wax. mais mais la noonu la. waaw parce boo gëmee sa bopp rek. jeex na quoi. waaw ñu ngi waaj leneen li nga ñu ngi waaj loo xamante ni incha allah xam nañu bu génnee. waaw dina def toile dina. waaw nice quoi duñ bëgg di wax quoi mais dañu bàyyi rek. incha allah man dafa mel ni ay tapet laa invité. non du question tapet. Jaga dafa mel ni man ay tapet laa invité. non xam ne bu koo si wax ne lan ngay waaj mu ne la non dama koy togg dama koy denc quoi damay bañ génne ko. gars yi kii ah, xam nga loo togg te togg te ñoragul. mënoo si mënoo si mënoo seex dara. Ah, mais nga ne nga ne gars yi maa ngi togg lu mel nii sax. waaw gars yi xaaf mun koo xaar. Ah, ñu ngi xaar ñu ngi andi tamit lii laay togg gars duñ ko mën a xaar. ñu ngi andi leneen yu bëri yoo xam ay thème la. Uh-huh. waaw loo xam ne. day yeete quoi. day yeete day yeete surtout loolu. loolu laa bëggoon ñëw ak ak iso parce que parfois waykat yi dañu leen gis ñu koy def lu bëri mais yéen rappeurs yi est-ce que aussi yéen a ngi ciy bàyyi xel di génne ay yoo xam ne aussi day yeete. waaw am na ñu koy def. Mhm. am na ñu koy def yow yow yow laay wax yow kay la. <laughs> waaw yow yaa tax may wax est-ce yaa ngi boo ko génnee gu tamit est-ce que yaa ngi waaj a yoo xam ne day yeete aussi. waaw sans départ rek. sans mhm. départ rek quoi. macha allah incha mhm. lépp dina ñëw. génnee goo kon bu yeeteegul. non non génnee gu non Izo yow tamit <laughs> <laughs> mooy loolu mais di nga ko génnee a même. j'espère waaw voilà mu ngi noonu. léegi euh, ba tey maa leen koy fàttali 78 la 106 60. 63 pour nga mën a participer ci émission bi DG Pape Mar la DG de Galaxy TV Sénégal maa ngi koy nuyu ba baax a baax a baax Pape Mar yaag madame aussi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen euh, coucou Sadio maa ngi leen nuyu bu baax a baax waaye Jigi Ba mu ngi may envoyé maa ngi gis sa message aussi Jigi Ba taalibe cheikh bi moom it mu ngi may envoyé message ñoom ñu ngi waaj le 26 avril waa kay 78 le 106 60 63 allo salaamaaleykum allo oui maa ngi lay nuyu bu baax a baax waaw maa ngi rafetlu émission bi. waaw ñu ngi lay sun sant bu baax a baax. maa ngi rafetlu émission bi gis naa fi ñaari artistes ay ñaari artistes yu am talent. tur beeg sant bi. maa ngi rafetlu émission bi. tur beeg sant bi ak fooy wootee sëñ bi. Ido Ido Ido. waaw ma bàyyi leen Izo. allo allo waa jëlal Izo. waaw mais Isa waxal Isa moo yor drapeau Kër Massar de. waaw mbaa du ma ko yenu. Isa mën ay la nangu. waaw yeneen ñëpp yeneen ñëpp dañuy xaar Isa moo yor drapeau bi de. drapeau Kër Massar de ñun yore Kër Massar yore la ñuy tomb. waaw waaw waaw. Isa waxal ak yow. gars yi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp a ngi fi yore yi tomb. man yéen yéen rek laay topp man. Isa mën ay la faal. waaw Aïda. Aïda. iso Izo xoolal sa caméra bi fii. xoolal sa caméra bi bàyyi écran waaw waxal ak ñoom. nuyu leen bu baax a baax Izo ñu ñoom ñu ñi nga xam ne jënd nañ seen crédit aussi woote te gis nga leen en groupe lañ toog ndeysaan di la seetaan di woote. Aïda maa leen nuyu bu baax a baax Diagne. Mhm. waaw maa leen nuyu bu baax di la sant. Mhm. waaw waaw maa leen nuyu maa leen bëggee yéen ñëpp yéen tamit mhm. incha allah. dégg nga waa Kër Massar ak ñoom Moussa woote ne Izo moo yor drapeau Kër Massar bi Izo <laughs> Izo moo ma la ciy félicité parce que yombul aussi ñu ne la yaa yor drapeau dëkk dafa yombul de macha allah liggéey rek nga koy maye ah. kontaan naa ci ñi nga xam ne woote nañu aussi depuis Kër Massar ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax yéen ñi nekk foofu yëpp maa ngi gis seen message yi aussi waa Kër Massar chez lii mais da ngeen di ci numéro bi sama le 106 60 63 s'il vous plaît mom ci ngay woté dal dina sarax ci biir émission Galaxy Show ànd ceeg le plus jeune animateur du Sénégal ànd ci aussi sama invité yi nga xamné ay ndanan pire lañ kenn ki mu ngi jóge feulé ba Kër Massar. genn dem di ñaan gaay yi jàppale ñu quoi. parce que ay boy lañ. Mhm. ay boy ndaw lañ. Mhm. nañu jappalé jàppale ku ñu jàppale rek inshallah dañuy dem. macha allah incha allah. gom mhm. ken gom maa ngi lay nuyu bu baakha baakha baax gis na aussi réaction bi mais comme ni nga ko événement bu mag euh, ngeen bëgg a tëkk seen localité muy Zagbaaw. mais loolu aussi est-ce que ragaloo ko est loolu méttiwul tamit. waaw lu métti yàggut. <laughs> lu métti yàggul ah. day donte métti na. Ah. mais dañ koy def benn yoon rek mu jeex. mu jeex waaw. Ah. di ñaan yàlla rek yàlla na doon loo xamante li gën si ñun la. Mhm. waaw di ñaan gars yi jàppale ñu quoi. Mhm. na ñu jàppale bu ñu jàppalee dinañ dem. incha allah mhm. Sadio maa ngi lay nuyu bu baax a baax Sadio borom euh, seen métal teg saajo seen métal teg maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom lépp loo xam ne jëm na ci fer. moo ci mën nee naa la lépp lu jëm ci fer moom seen métal tegal ci mën Sadio maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom incha allah fan yii di ñëw di ngeen ko gis moom sponsor ci émission bi mu daal di ñëw waa kay Izo Izo waa Kër Massar ñoom dañuy bëgg ci yow de dañuy kontaan ci yow parce que gis naa message bi mais loolu est-ce que liggéey bi yomboon na liggéey boo xam ne moo leen di mettre en relation ak affinité bi ngeen am yàq sa waa population loolu nan ngeen def ba liggéey am ko. waaw fii moom yomb na yomb. Mhm. waaw yomb li ma gën a may pour gars yi di ma suivre quoi. Mhm. suñu Fosco bi la Kër Maam mhm. waaw moo ñu gën a may moo ma gën a may visi visibilité quoi. Mhm. pour gars yi di ma gën a suivre. ah pare di ma bëggee quoi. waaw. mais mais mais mais loolu aussi il a il a fallu aussi nga am nooy mel parce que tamit même bu dee gars yi ñu ngi la suivre te meloo neen ñi duñ la duñ la duñ la bëgg duñ la fonk duñ la teg benn niveau bi mais tamit dafa am noo xam ne yow noonu nga def ak ñoom. am benn communication bu bu boo xam ne aussi moom ngay am ak ñoom ba tax ñu bëgg la aussi. non man moom ñoom ñëpp laa ak jàmm. damay kaf ak ñoom di fo mm-hmm. di fo di ree mm-hmm. waaw amuma bileem ak kenn. Mm-hmm. waaw alhamdulilah. ah kon nice. nice maa ngi noonu yow nag euh, aussi ah, gis nañu nga am people boo euh, bëri fële ca Zang maanaam gis nañ keroog ba nga jógee ci Oscar des talents bi aussi gars yi euh, aimé nañ ko bëgg nañ ko gunge nañ la si aussi loolu aussi nan ngeen def ba am liggéey boobu noonu. link boobu noonu comme ni nga xale yi waxee. waaw kontaan rek parce que ñoom ñoom mm-hmm. bu ñu gisee xale boo xamante ni mm-hmm. seen moroom la. Mm-hmm. mën na mën na way te am na talent bi. dañuy bëgg di ko jàppale. parce que man loolu rek man loolu moo tax ma bëgg waa Zang Mbaaw quoi. Ah. parce que gis naa li ñu def. acte bu ñu def dafa rafet. Eh, dañoo mën de. waaw maa mujjee ñëw Zang Mbaaw maa mujjee ñëw Zang Mbaaw. waaye dafa mel ni Zang dañ ma bàyyi xel. Mm, macha allah mm-hmm. dañ ma bàyyi xel parce que kontaan naa trop si si si luñ def quoi. Mm-hmm. parce que man yaakaar ma woon ni bés dina ñëw. Mm-hmm. ma am lii fii si Zac Mbao. Mm. donc tey maa ngi fi ñëw fin 2019. mais xoolal. durant fin 19 2019 ba 2024 tey bokku na ci ñom bo tuddé tay artisan baaw Baab mhm. di ma ci bolé hmm. lolu content na dama ci content parce que ñom la. non mais aussi liggéey nga yow tam aussi tam ci ci liggéey bi la. waaw ya ko liggéey aussi aussi tam ci liggéey bi la. Mhm. parce que content na trop ci ñom content mhm. na tam ci yow. parce que gis na yow mom ya nga may jàppale si affaire yi nice quoi. non c'est lolu ñu war borom baax nga. non lolu ñu war quand même. parce que ñun aussi dañ ñoo dañ ñoo def ni ba ñu yegg fii kon ñu ni day baax suñu mënee def nii ne ñenn ñi aussi ñu def leen ko ndax loolu tamit mooy àdduna àdduna yaakaar naa ne jàppalante la rek comme ni ko ñu bëri di waxee ku ñu jàppale aussi boo gisee koo mën a jàppale te jàppale woo ko rek yaakaar naa ne dogor ndaxte man euh, Assane Laye ñing borom Galaxy TV sama waa ji Assane borom borom af pak moom mu ngi nii nit ku baax la macha allah samay yëf moom da ciy sawar lool da ciy jàpp torop sax mais léegi temps yi moom daa commencé di di kii quoi parce que dañoo dem ci xew bi ma bàyyi ko foofu quoi moo tax mu commencé di siisu maa ngi nuyu Tolita mu may envoyé message Tola suñu caméraman bu jigéen bi moom barki démb rek lañ ko jël soxna ñu koy wax heureux ménage di ko félicité bu baax a baax Tolita Tolita maa ngi lay mettre un aussi di la nuyu bu baax a baax waaye maman Cissé aussi borom good time fii ci Galaxy TV maa ngi leen di nuyu bu baax maman Rasoul maman sama animatrice bu mag boobu kenn du borom bandee jeune yow aussi maa ngi kontaan ci yow bu baax a baax maa ngi gis message sama yaay Ami Gueye depuis croisement ñàgg waa ñàgg aussi maa ngi leen di nuyu maa ngi gis message aussi depuis croisement ñàgg kontaan naa ci yéen bu baax a baax a baax Izo euh, yaakaar naa ne ni euh, ñu desee ci waxtu bëreetul de njaga léegi dama baay la nga jël sa temps may ma dara may ma dara lu lu tojaat waaw may ko téléspectateur yi lay seetaan ñu daal di ànd ak moom daal di tëjoo moom aussi nga daal di nuyoo ñi nga xam ne ñoom nga bëgg aussi Mhm. wow am na talent bu mën a gas seen bàmmeel kaana yi man la ñuy topp da ngay gaaw faatu bu dee iso ngay armeel da nga moo dani galaaju bopp aw oh yee toppal sàppa bi sukki saaf la ñëw seeñu sàkk mi sotti son bi seen cin mu sàppa lii sampi simpi seen son ma sandi fis si kaw rek nga may seen tegoolu jomma sa gaay man kenn duma ko lu ma téef tëjëru di bind lu salte tëju di bind lu salte mu tasaare comme lomotif ñëpp laay këlamtikoo ndigal bu fi ñëw di bànni ñu saaf ki leen di jiite si pot maa ngi doxantoo ak xale bu saaf ey man ngeen bëggoon rendi am gën tey ko sax da ngay tiit déglu ma daaju comme ku tux bon say prisé setul kon ku lay fil ndi nga agaari kiis ey maa ndiga you know the vibes la sa bis yow comme lu tax ma nekk sa bàyyi iso ngay yepp mais si boo ey ey ma iso bu baax a baax a baax tàccu leen ma iso macha allah macha allah iso lii nice na trop trop trop trop sax li nga fi job nii iso ngay yem oh waroon naa mun a rab na ba ma ba ma delloo la ko léegi sax nga comprendre mais iso ma bàyyi la nga nuyoo aussi euh, nuyu ñi nga xam ne ñooy waa Kër Massar ñoom ñu toogoon di la seetaan ñoom ñoom ñëpp ñu ngi may wax ne Khalil ñu ngi suñu doom ji ñoom ñëpp ñu ma koy wax di sot macha allah mënoon nañ nuyu ñu ci plateau bi mais ñuy nuyu seen doom ji kese war ñoo def loolu tamit <laughs> nañ ci waxante loolu ñu bàyyi la nga ak téléspectateur Galaxy TV Sénégal wax leen aussi ku la bëgg a jot nan lay def waxaale aussi say compte yi nga am yëpp ma bàyyi la antenne baa ngi noonu nga nuyoo ah, te jaale maa leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm waaw surtout waa maa leen bigam waaw pénitence tamit firil <laughs> pénitence maa leen di bigam yéen ñëpp waaw mm-hmm. kontaan naa si yéen gis naa seen taxawaay mm-hmm. waaw am ma seen fay sama mère tamit maa ngay sant bu baax di ko gërëm waaw ku ma bëgg a kii ni suivre nag dama si mm-hmm. Instagram Izo l'officiel la boo demee TikTok Izo l'officiel waaw sama ku ma soxla pour kii ni ay concert wala fosco yooyu sama manager ngay wo waaw numéro bi mi ngi ni 77 240 74 88 waaw Abdou la tudd Abdou Diouf waaw ñi ko ñu gën kaa xamé si Kepa Kepa wa Kepa ah sa manager ah waaw macha allah mooy business iya, ya tëj nga yaaka na ni nuyu nga ñi nga bëgg a nuyu ñëpp bëgguma leen tur quoi mais ñom ñëpp ma lay sant di leen gërëm voilà voilà voilà ñëpp ma lay sant di leen gërëm waaw waaw kay ki jaar ci abima bi nak Abima one shop. one shop waaw one shop. <laughs> xam naa après di nga ñëw mu may moom tam mu may jox. one shop incha allah amul benn ki nga <laughs> àndal aussi mooy loolu. kii sama waa ji. Ah. Ibi Ndiaye maa ngi koy sant yow tamit. maa ngi bu baax a baax bu baax a baax kontaan naa trop. waaw waaw mu ngi noonu. kontaan nañu OS euh, kontaan nañ ci yow bu baax a baax ISO parce que invité nit ki aussi mu déplacé wu jóge ba Kër ñëw ba fii ci Rufisque yombul woon aussi mais kontaan naa ci li nga xam ne moom nga def acte nice na rafetlu naa ko aussi di wax aussi maa ngi jéggalu aussi ci retard bi nga am yooyu yëpp mais compte sa compte yooyu yëpp comme koy wax nga ko aussi gars ku la bëgg a jotee comme ni mu ko waxee ISO l'officiel l'international ISO l'enfant chéri de boo ko bëggee woo aussi di nga ko jot ci nga daal di koy woo ndax gis naa ne c'est un jeune pétri de talent ah événement bu mu ñëw de man xam naa ne événement boobu dina yëngu léegi ma ñëw ci l'enfant chérie de la ZAC de dama daan ni sarax génn nank Galaxy jaar rond point Sipres su ma demee foofu jàdd dem ba rond point ak saa jàdd nuyu ñu fa nekk ñëpp seeti Ousseynou Sow mu daal di tàggoo ak téléspectateur bu Galaxy TV Sénégal. waaw maa ngi kontaan naa trop trop trop si invitation bi. Mhm. di nuyu sama frère bi Iso. Mhm. ak ki mu andal mhm. di ñu nuyu di jeexal yi yow tamit parce que tay invitation ya ko waral aussi mhm. parce que lepp yow la ma sha allah loolu suñu waral di nuyu tamit sama sama du ma du ma nuyu te du bay bàyyi tamit sama sama sama waa gàlle mhm. parce que ñom la lepp ñom la téré wuñu ma dara waaw ma ngi ci musique bi ñom ñu may gëna fonce ki nga mel sama papa ak sama yaay waaw wuñu ma ci dara ñom lay ñëk sante avant tout di soga sante ñi nga xamanteni mooy ñi nekk sama ginnaaw. waaw mhm. ah, waa Inside Music. Inside ki si mel ni Zendi Dial Asli ak euh, Ismaftu. Uh-huh. yee di nuyu. Uzi Uzi Boys. Uzi Boys ndeysaan eh, Uzi sama sama moom moom dinaa ko dalal fii incha moom tamit sama jumeau Assane. Assane Sow nekk fële 1G foot. di ko ñaanal moom si li mu nekk yàlla na ko suñu borom may ndam. allahumma amiin trop trop mhm. trop trop. di mhm. nuyu ñi ma jàppale woon tamit si Oscar des talents bi. Mhm. waaw du ma mën a mënuma lim ñëpp quoi. bu lim rek da ngay juum waaw Kau nak trop trop trop Wah, dunia time sama sama semua kau pas ke lima muka jendela <laughs> ha, aku pergi pergi marah marah sah ah marah sah marah sah mati mau takyub mau belum mau ha, sejarah marah sah mangkei mangkei mangkei new apa sih ah, ah? masya allah ah, masya allah

toog di seetaan émission Galaxy Show nuyu naa leen kontaan naa leen waaye damay remercier bu baax a baax aussi ñi nga xam ne jàpp nañ ci émission bi yëpp Ousseynou Diatta maa ngi koy nuyu depuis Zangba waaye di nuyu toute la population de Zangba bu ma limee damay jum Bira gay maa ngi lay nuyu bu baax a baax Adji Ba maa ngi lay nuyu ak waa Cité Mam. informatique obtenez votre DEC tous nos cours sont disponibles en soirée sauf les cours du master pour ceux qui visent le sommet choisissez notre master en management des entreprises et organisations pour façonner votre leadership. Appelez notre infoline au 33